maa ngi leen di nuyu d'abord ku nekk ci turu ak santam di rafetlu seen taxawaay maa ngi tudd Babacar Sow nekk président parent d'élèves yi nekk judd. waaw dañ ci bég di ci kontaan parce que franchement man bi ñu ma woowee démb téléphone ni ma naa fi ñëw tey pour am lu ma jël si xalaatoon naa lu nekk quoi dama yaakaar ni bulletin xale yi la ak yooyu mais bi ma dajee léegi suñu benn collègue mu ni ma ceeb lañ fay joxe yooyu dama am mbégte ak mbetteel quoi parce que nit ku lay dimbali. jëlal la sa doom en charge di ko fayal ay étutam di ko jëndal fourniture yamu ci jël fii classe def ko ci kaw jëlal leen professeur maître ak lépp lu ñu soxlo ci bépp matière ñu leen di jàngal jamono bu ñu jógee école dañuy jaaraat fi ñëw ñu jàngalaat leen ñu doog a ñibbi fan yi lañ ko arrêté parce que comme état bi nee na bu benn groupement amateeg yooyu ci lañuy xale yi toogandi leen seen kër ba ñu déggaat beneen ordre bu ñu reprendre loo ñu woo leen ngeen ñëw jàng si waat tey nag bu ñu demee ba ñu romb loolu non seulement xale yi ñi ngi toog seen kër ak seeni waajur ñoom seen yéeg-yéeg ñu xam ni waajur yi xëy na seen doole mayu leen lenn li ñu yëkkatiwaat lu toll ni saaku ceeb ak ay saabu di ko dimbalee waajuru xale yi ñun amuñu lu leen gërëm ak leen sant ñoo ak seeni partenaire parce que nag lii ñu def nii du lu tuuti nit ku ko fekk ci këram ak njabootam nga yëkkati lu dund jox ko ko ak ay saabu vraiment pour dimbali ko njabootam dañ leen di gërëm di leen sant ak seen njub parce que tey jii lii nga xam ne moo fi ñëw ñun du lu ñu yëg ci loxoom la tegu mënoon na ko jaarale feneen noppi te ñun duñu xam dara parce que yaakaaroon ni xëy na ci fayum njàng lañu yem jàngal xale yi mais bu demee bay am xaalis di ko jëndee denrée encore di waat famille yi di leen ko séddale kooku ci seenu njub ak seen yaatal vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm aussi suñu partenaire belge yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jàppale di woote nag aussi sénégalais yi am nañu alal nañ ñëw def lu ne mel jàppale doomu Sénégal yi jàppale leen ñoom ñi ñu am ay local yu ñu moomal seen bopp ñu jàppale leen ba lii gën a yaatu lu doon jël téeméeri nit mu mën a jël junni nit parce que am na sénégalais yoo xam ne tey ñi ngi fii ci Sénégal ñoo ëpp belge yooyu di parrainer xale yi fii ñoo ëpp alal